Euh, jokonjal jokonjal jokonjal nun fogole sereer in way lemtayo nun no oxu refna no gonum fo no simangonum in way dans la commune de noto euh, Diobass Sarane Lembel Taten sereer in refo no safari euh, découvert ingaro mekani yonode fo jobas info jobas info nango nanangan te ref par exemple programme ni andona par exemple din fo qoodin ka faralo a fiyanayo te ref ke andona télécommunication no comme ka lembo le premier développement de notre pays c'est la communication et sans la communication rien marche pas te ref ke andona par exemple ka jiga jeune talent jeune talent nak ka may côté nen te wat te ref jeune talent andona o kiino o njaong a lembana jantal mara a lemba ku mais hani fogamale o ten gari on pour uto keta kawna te ref cosan in uto keta kawna te ref o andol in uto keta anna te ref ando ka warno lemmir a waxtanin fo bitim rew a waxtanin fo sénégal i ñuno de fotin fo ye jom voice info in warno intervenir te fo pan ho andona ka so el mu refna koropa in way lemtanga no gonum fo no simangonum jokonjal jokonjal koropa in way lemtanga wo lembel nam wo lembel ekaano bisimillahi rahmani rahim faɗani faɗatintaɗo alhamdulillahi alamin waaw en geɗɗuma e noon tamit lemtanol bo baaha baaha waaw surtout bo moor fo ousmane sen mi ziyara noon ge mayna waaw miyetele mba bada bada badara bada mara waaw gen taten mben po yaalo fournele fo ciinge fo kuusge fogam nanirna gonɗem hane hene kam jooɓas andara xam nanana gonɗem kam jooɓas hane hane waame dalna nuun no jaam ak salam commence émission joko njal euh, kooro xe Alioune Badara Gning neɓan gonum alam simangonum a ref meke mene le mele mbin pou euh, kam taten sereer in lang cenga keke andoona par exemple de ka yoɗnoxa tig podum jigode waaw geek ning ma yoɗnoxa moom waagong lem de ñetti te jegum de hmm. ndax ref ma nja nduluñ yekereftumaa lamdum no ya lamdum no faap ka ref ga andoona yee kan rimtalu teen ndaa waagang mi lem re jegma re jegma ref kuus fo ciini kon waagam lem ba pajal wo no aada fo cosaan ka jeg we yoontuna anda ndook yoontuna kaman ba tax din fo qul kiin a garang meeke a ɗaxa soxlaan tin xano and no fa it kan eyo o ndeng naat na gar meeke kay buroga jom no feere sah kenaga min jikka fof kan anda den o warma faaj te ala waronga faaj andanmi bo baaha baa on wonga meh buroga feeta kiɗan warma jeg fugon warma faaj fugo waronga faaj andanmi waaw paƴal mi dëgg dëgg dëgg nguusono kuus fo pangol eyi kono mbimanam euh, waaga anduna yonta o foƴa foten dilo ha laŋ cangayo ay gemti lamca ha made hana mom uso usowo fo haɓakal rek waaw gaga reta lamcade wax dage lamcen ga sara lakas ɗalna kene ah, lamcadama sara lakas ɗalna o soow xa ɓakal panne ke fiya te ref panne andona par exemple ko lem ko yoɗnoa kon panne xa jublu o de xa jublu o de panne te ref xarale namo ñoowade fo wiin we ke andona e, te ref wiin we andona roog o yodnidin lang ambition num jigode wiin we waaw comme gol lem waagma lem rek ndax jooɓaas moom a maynoma garame bu baax a baax a baax comme golle maden mi haalis fokkateram fo winɓe wod wod wodnade fo dara façon dom adan faƴanmi meke re jini re o yeng re jel lakas jere gartona me wagmana safara falanga roog an wodda wagano jal tamit o fadang meke len waganomo faƴ mofkire seh bereb nim kono ndigi dal wagam lemale dal waɗode o jigme ko waɗade o roog ye kan waɗade ko roog ge warma jigde paƴala felanga roog han jiginde doomu adama doomu adama adama nak mera nati bafta anda payel den sugo sugo a paƴal demare tanum jobas ndiggem kedde guti beta ha mi zone mele salimata i kam basariw jatne ma commencé no paƴal mi o geso o geso na bada lamti kedde gore nan ando da mere lembi ga ha mayo mene mene bu saba dola sareya ka bu ubaji polane lugno na bada maso wala basari anda ha mi maga atom atom paƴal mi ndax kan fi maga jallore jallore jallore fi maga kaɗam bon ɗeganel terrain maga pour en fañatu gaten waago ɗahanade lem den mi alema ɗo waag beccaɗen mben noon jeɗin kimɓe jatten haƴɓe saahe daccirag mayɗen ɗo men trop a sonel ɗo jaigue fo accira paaherag dare garam meke diren mof me ceragna foñɗa fof faƴam den o hani jegna jinen sonlonga ɗitan mi bo saaha rek rafma hane hane hane o deklohagan hane cerag jaigue de cinga a fagando me a wañoro me paaho paaho wagamo qolnan kon jaoñana meke jini nana daka jin ana do anan kilifa kino anan kilifantir ñoɗo fof kilifantir hana hana haƴo jaƴgue sawo ndino biga lembale kon kan comme kam ka keno kam min leng walla min mayu wo walla comme ni wagon labirta am mi wagimo jiini andim jiini namte gentiyo cingue mayan ɗo mayan ɗo torop daw ɗiya tan so emne ke refna refna mik refne so emne refna kilifan ibrahima tene o donnade o donnade de yalbinne siiditine mi siidi ñeetum fo ibrahima sidi fo ibrahima ñatuna anda alamano o jini ka koɗel alamano o jini aussi ka jeg sarax ne no fi'anan bata wawo garme wo mbi manam kon na fi'o bo jin ke garango cin ge o gang no gemin dalna fop nda o ɗetan kus fo cini wera wera fi'o cin ge min jalta fop refe mofnami o jegmano o sohla kan hoye warongo hen ñaɗ fo ndax kuus gem wera fi'o fo jini ndax mi so'na jini baf jangteno maaga mini mo jalta jini jini kan jegoro weññaɗata ten kan heto fo men heɗa ko ñaɗa fo gem ñaɗa ka fof to kuusgena gebugmate fiyanamate fiyanamayo ten o na kawna re jinere o yeng midlema bada mara yalu furne le o hoyanga kawna wala jini garmi ken titen baloɓe kala kañen garmi ken titen ligue ligue refnowo garangin gefen mbino fa jaha jaha soworu garangin régle en ana jokonjal euh, comme in wey euh, nangilo la mu refna kam moon ne kam sénégal me ken te ref ki andoona par exemple ke jigna solo un peu d'introduction comme ka lambo la langue officielle léegi dañ la doon laaj yow Aliou Badara Gningue lan mooy sa faj li nga xam ne ci moom ngay dimbale doomu aadama yi ndax wax nañ ko ci séeréer foofu ñu bamtu ko parce que Sénégal langue officielle bi olof la dañ laa bëggoon nga wax ko ci olof tënkal ci ay kado lan mooy lan ban décision nga jël ci doomu adama ak li nga xam ne suñu borom moo la ko dénk. waaw lu may yàlla man de maa ngi fii dëkk Nooto Jobaas fu ñu waxtaateen séeréer koo ne Badamara xam na bu baax a baax ci Jobaas fi mu nekk nii waaw faj bi su ma su nekkoon dama cee jublu pour wut xaalis rek duma fi ñibbisi kon damay toog kedde googu gu ma doon fajee hmm. mais dama ñëw fii pour dimbale jaamu yàlla yi hmm. faj bi wutuma ci xaalis lu ma ci war am nag dinaa ko si am hmm. waaw dimbale jaamu yàlla yi moom ma tax toog fii ndax xam naa tey ji su ngeen duggoon si biir dëkk bi ngeen def ko ni ko ni micro trottoir li ma la wax ni moom ngay dégg si nit ñi amul kenn ku ma sa ñëw fi ma faj la man ne la fee mën a gam yaay xool lan li nga yëkkati nga bu nga wér ndax ba dëkk bi fii kooku ci mënta laaj ñu loolu la dañ la ne soo ko wa soo ko waxee sa soxla su nekkee mënu la faj du la laal mais soo la nee mën naa la faj xamal jërëjëf jërëjëf man nag damaa gis euh, mara yi en général mara yi dañuy dem ba ñoom seen bopp ñu boole ci loo xam ne bokku ci wala ñuy euh, wax ne mën nañoo faj lii te wax dëgg la yàlla xam doon la est-ce que yow ci li nga mën rek nga yem wala yaa ngi jéem a gestu leneen waaw comme li ma la wax <laughs> xam nga sama maam moom soo xamee samay maam mm-hmm. kenn ëppaloon xam-xam ci jobaas fii nii njëm mbañaan bu dekkoon pour pour ja pour pour biraan fee ku nekk xamoon na ko jobaas fii nii mm-hmm. nuk ndaw leen bu babaak mm-hmm. yaakaar moom lañ la tudde sax ku nekk xamoon na ko fii ak amaat ngoor mii mu nekkoon sama maam fii lu ma lu ma indaale dama koo doon benn maaramal mosuma jox banta wala mu jox ma sunguf man soxla ma sunguf jàmbur ak bant jàmbur man lu ma yàlla denki man lu nekk sama bopp ak lu ñu ma àndal lu ñu yor doy na ma sikk indi feebar bu ma bu ma manta faaj sax naa suñu borom dem wala ci dee nga jëm de loolu moom war na ma moom képp ku man ne mënuma la faaj xamal moom am na ñoo xam ne dama leen a faj fii nii tey su ma la jox su ma la joxoon seen i war nga waxante loolu la ñu am xam ne laa ko faj dañ ko soloon ngelaw bu ko soloon ngelaw bu mu néwee sa faj bi sa faj bi ci ngelaw la nekk ngelawu seytaane muy euh, affaire guddi ak euh, jinne nit ku dof wala nit kuy daanu pangul daal pour mu gën a lépp laay faj lépp laay faj da nga gis nit damay ne ndax yow jinne kese ngay faj jinne moo gën a tuuti tuuti ci lu may faj jën ak netu godé moo gën a tuuti ci lu may faj. kon ñu ngi newoon fii euh, diwaanu Taten Seereer ànd ceeg mbenn mara boo xam ne mara bu mën lu muy def ñu naan ko yu Badara Gning Alieu bari Gning lan ngay wax population Sénégal ak lan ngay déclaré ku la soxla nan lay def ba ñëw fekk si la fii. waaw ku ma soxla moom dinaa leen jox sama numéro waaw. sa numéro lan la. 77 598 85 06. waaw ku yàlla baaxee nag bu nga egsi ci fii nii. sa aajo dina faju képp ku ma mënta faj nag yàlla na bu fi egsi waaw waaw kon euh, olof Ndiaye dafa faral di ne euh, wéri gis bokk ci nii laa mel nee laa mel te su ko wax say dëkk noonu ñu ne woon tey euh, di def safari découverte ànd ak ci waa Diobass info ci xale boo xam ne xale bu mën lu muy def di marabu séeréer fii di jantal mara dëkk ci diwaanu Taten séeréer dégg ngeen ko lu mu wax kon sama gars yéen waa diaspora ba yéen waa Sénégal yéen waa Diobass yéen tuuti yéen waa commune de Noto Diobass bu ñu nee Sénégal jeexal na yëpp kii mooy jantal mara muy xale boo xam ne par exemple wax dëgg yàlla ku mën lu muy def la ànd waa Diobass info moo ñu war koo jëf dugal ci internet bi Facebook bi euh, réseaux sociaux yi mu doon loo xam ne communication fii la mën a yem jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf Alioune Bada balaa ñuy def dara nga tàggatoog nit ñi comme ni ñu koy faral di wax ak population Sénégal. waaw di leen di delloo ziar rek di nuyu sama papa bu baax a baax ma koy gërëm ndax gis naa fu ñu taxaw ci liggéey bi tam ñoo ngi ma ciy jàppale bu baax a baax. di nuyu sama yaay tamit bu baax a baax ak yi waaw ah, ndax nit moom soo amoo xam amoo daal doon la say. waaw am na li ma la bëggoon laaj benn soxna nga am wala ñaari soxna wala ñetti soxna te maa dégg gum nga gërëm soxna si de. <laughs> benn soxna la am maa bëgg naa beneen nag. waaw mais benn la amagum. waaw maa ngi koy wut nag bëgg naa benn mais benn la amagum. <laughs> jërëjëf jërëjëf jërë ngeen jëf merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup.